le président Macky Sall. waaw ne mandat bii nekk en cours deuxième mandat bi da nga koy qui ci euh, anam yi constitution sénégalaise limitée à deux mandats est-ce que mandat bi mu nek bokk na ci deuxième mandat. bo mën oui mais xam nga la ilaha illallah. Muhammadu rasulullah alayhi wasallam da nga koy dama lay poser ay questions di interpeller les intellectuels sénégalais ak experts yi dama la quand tu regardes la mise en œuvre de, ce, de cette constitution par rapport à la limitation des mandats, est-ce que le deuxième mandat en cours du président Macky Sall fait partie des deux mandats qui sont visés D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je me poser une question mais ci biir d'accord d'accord d'accord article B, 27 bi ci constitution li wax mais li ma la ci bëgg a wax le la président Macky Sall mi ngi def mandaam bu njëkk buñu ñu sukkandikoo ci constitution bi loolu nga ma bëgg a wax ndax loolu nga ma bëgg wax monsieur le ministre. waaw dama la bëgg a wax ne. mi ngi doog a mi ci mandat bu njëkk mu ngi mandat pour bu ñuy compter li constitution en cours wax limiter le nombre de mandats à deux bo ci boo ci sukkandikoo ci constitution bi le président Macky Sall deuxième mandat mooy premier mandat par rapport à la limitation. d'accord. kon 2024 dafa am droit ci beneen mandat. loolu nag moom laa la doon wax sànq nga xaw a yàkkamti ma ne la. ah loolu kay def par force la non non du par <laughs> force. non si bu fekkee ni premier mandat bu fekkee premier mandat bi na fekk yàlla def ñu nekk fi ak jàmm te moom gis-gisam euh, may ko mu mu toog wala gis-gisam may ko mu def leneen yàlla rekk a xam dama la ne loolu ëllëg mbiru yàlla la comme dañ ma poussé pour ñu waxtaan nak réellement ci euh, constitution bi lim par rapport à la limitation des mandats oui le président de la République son excellence Macky Sall par rapport à la constitution qui limite le nombre de mandats à deux mu ngi ci premier mandat Légui nak la muy defi 2024 ak 2025 dama la né lolu laissons le temps au temps en ce qui me concerne en tant qu'acteur politique dama né lima soxal tay modi deuxième mandat bi naka la koy doxale déggaat naa nga ni deuxième mandat bi yaakaar ni juumuloo ci. non deuxième mandat c'est attention loolu c'est les faits manam mono bañ wax ni li deuxième mandat la mais par rapport à constitution parce que yow dag ma beug teunk ci constitution bi faté itam la xewon demb ak barki demb teunkuma la ci charte rewmi ah man teunkuma la charte la constitution est une loi, et une loi pour qu'elle soit rétroactive, il faut que nous stipulions dans la, dans, la formulation. Ici, il ne s'agit pas d'un cas de rétroactivité qui a été euh, euh, signifié dans les textes. Donc, rétroactivité non parce que yow bon ma un premier mandat il y fi a rétroactivité ci boobu loi. non non ci non non c'est-à-dire que dama l'année, vous bu qu'on des day de faut agir à partir du premier mandat c'est-à-dire que la constitution le mandat en cours du président de la République fait partie. des des des des mandats a à à compter bu boobaa dafay nekk une rétroactivité day xool gannaaw. or loi du xool ginnaaw. fañ ko tënkee fa lay commencé xool kanam. d' accord loolu laa la bëgg a wax. d' accord esprit bi moom moo ñu ko leeralal yow li ngay wax yëpp mën nañ ko sukkandi ci texte bi waaye esprit bi moom président ci boppam moom moo ñu ne ñaari mandat bu ma ko defee. bu ma réew mi ci mandat bu njëkk ba mu ne am naa benn mandat bi maa ngi wut beneen bi buñ ma ko joxee pare naa ci. te bëgguma di ma ci mandat. xam nga président de la république son excellence Macky Sall nit la rek comme yow comme man charge extraordinaire la am la am rew mi yëkkati ko tek ko fofu mais waxam du loi toujours mën inspiré inspirer loi waxu président mën inspiré inspirer une loi mais du loi la preuve dafa bëggoon wañi mandat bi de de sept ans à cinq ans mënu ko te monon na ko de. non non monuko won c'est-à-dire que anam yam koy defé anam yam koy defé mom moy ay anam yo xamné ne na sax créer ay instabilité au niveau du pays xam nga wax ko ni rek yomb na mais ñi xam droit dëggantaan ak conséquences yi xam nga né bu mom bu forcé won né da fay limiter à à 5 ans le mandat de 7 ans da ngay xol conséquences yi ak naka la koy defé xam nga du jaay doole mais teg ko ci yoon ba def ko ba mu réussir ah xam nga loolu experts yi ñu nga xam ne ñoom ñoo ñuy ñoo ñuy représenté ci mbiru yoon ak doxalinam ak niñ koy taxawale ñu xam nañ ne ay risques yu rëy a ngi ci woon mënu ko def te waxu président de la république euh, c'est vrai kilifa àdduna réew mi la mais nag waxam du loi mën na nag inspiré luwaa mën nañ ci sukkandiku pour taxawal loi. waxandu loi mooy wax.